Wow! Wow! rek di wax ni rek chaque jour ah sur Asmoon TV républicateur des valeurs ci valeur rek la dox ñu ngi fii nag tey avec l'ancien international Ibrahima Ndiaye Sindou fii si suñu quartier muy loo xam ne wax dëgg yàlla ñëpp a koy rafetlu parce que lii rek comme li may wax chaque jour ci moom dafa nekk nit koo xam ne tey jii ni nit ku baax la nit koo xam ne daal nit ku social la nit koo xam ne tey mun nañu wax ni tey jii ci quartier bi ñëpp ko jox cër ndax ci oyof ndax bëgg quartier tey gis ngeen li xew tey muy set setal bi nga xam ne tey jii nii dañ koy def fii ci Liberté 5A muy lu loo xam ne tamit ñun ñëpp dañ koy rafetlu parce que benn mouvement bu bees bu fi juddu boo xam ne tey jii nii dañoo taxaw pour seen quartier jëm kanam seen taar taaraayu quartier tamit la ñuy dox muy set ba nga xam ne tey jii nii ku fi dugg naw leen yamuñu foofu parce que ñu ngi ci def ni di créer tamit. ay entreprise ay ay ay mouvement bi créer tamit euh, benn benn ay entreprise yoo xam ne tey jii nii dinañ ci mën di jàppale xale yi nga xam ne tamit ñi ngi dëkk fii ci quartier bi xale yi nga xam ne tey jii nii seen jàng xëy na soriwul waaye di jéem a fexe rek pour ñu am benn formation boo xam ne ci côté métier ba nga xam ni ëllëg dañu am lenn loo xam ne dañ koy rëccu di ci am contentement rek di ko def rek di ànd ak sama sama waa rek le grand caméraman rek ñëw ci Ibrahima Ndiaye Syllou di ko di ko di dog rek ci li muy def grand ñuy am mbégte ak contentement rek gis nañ tey jii nii yaa ngi ci set setal bi tey jii nii lu waral tey nga génn sol jàllaabi bi am engagement si sa quartier. waaw ginnaaw bi ma la fayee maa lay. nuyu di nuyu sa waa équipe yëpp ah di di nuyu képp ku ñu ci Asmoon TV waaw ah, di rafetlu nag euh, initiative bi ndax ñu amuñu lu dul Liberté donc bu fekkee Liberté 5 dafa euh, xewle woo nit ñu génn def opération set setal yoon la lépp ñu jàppoon rek ñu bàyyi ñëw jàpp ci liggéey waaw di rafetlu nag vraiment initiative yi parce que c'est des actes à bi grade beeg yooyu yëpp dañ koy teg nële tey nag suñu quartier moo xew la te dañ ciy jàpp di ci def appel nag parce que gisaguñu ñoom mbay alaaji mbay ala ala barji entraîneur waa entraîneur Tëngéej FC xam naa ni Ousmane Diop waaw tamit ñu leen xaar parce que prochaine prochaine bu leen ci njëkk bëgg nañ ngeen tax ci rip parce que suñu quartier moo xewle mais dañuy ñëw parce que gis nañ tey gis nañ ñu mouvement bi euh, tey jii nii di def parce que dañu bëgg taxawu seen quartier bëgg nañ ku dugg si biir quartier bi naw leen ci setaay euh, naw tamit ci seen xale yoo xam ne euh, xale yu discipliné lañ xale yoo xam ne xale yu xam lu baax parce que ñu ngi ciy sax di créer comme ni ma ko waxee rek ay entre ay ay de formation centre de formation yoo xam ne dañ ciy former xale yi nga xam ne tey jii nii jànguñu pour ñu am sax ay métiers ne dinañ koy def ba di a suturlawu. waaw as mu nekk initiative bu ñu rafetlu di ñaan yàlla projet bi gars yi taxawal yàlla na ko yàlla motali parce que jeunes yi tey c'est vrai que la plupart du temps ñii ni amuñu métier ñii amuñu formation donc gars yi dem xalaat yu créé noonu pour tàggat booy yi fenaa loolu dina jëmale réew mi kanam parce que ñetti mbir nee nañ la vie il faut défendre trois choses l'honneur le foyer la patrie donc patrie ci kër lañ koy commencé génn ko ci mbedd bi àllal ko ci réew mi vraiment di ñaan initiative boobu yàlla na ko yàlla mottali ndax euh, bu ne suñu ay doom lañu te yàlla bu defee ñu la formation ñu tàggat leen ci formation métier donc vraiment askan bi la. dëgg la dëgg la kontaan na luy jëmale réew mi ak askan bi kanam la loolu rek lañ soxla ci àdduna loolu lañ soxla tamit ci sunu sunu doom yi nga xam ne tey jii nii ñu ngi ñëw di wax ni rek tamit euh, am na loo xam ne tamit mënu ma la ko ñàkk wax parce que appel bi nga war a mën a def tamit parce lii dafa baax parce que boo gisee lii rek nga xam ni xel xel xel yi maanaam maanaam mun nañ am mun nañ am assurance ëllëg ni sunu doom yi ak sunu sunu sunu sunu rax yi dinañ am avancement dinañ am xam lu baax parce que tey jii nii nga gis sa quartier xaaroo ku la ci woo ñëpp génn pour fexe sa quartier jëm kanam kooku xam nga ni suñ ko poussé mu dem ci yoonam tey ban appel ngay def tamit ci yeneen quartier yi parce que am na ñu koy def waaye tamit euh, lu naan euh, maanaam gën a gën a soññe soññe bi tamit mun cee ñàkk ma xam ni tamit euh, homme de kii nga voix nga tamit nit ku nit koo xam tamit nit ku ñu ku ñu ñu ràññee nga tamit waaw ñu bëggoon tamit nga def benn appel boo xam ne sur le monde sax laay wax du ma wax sax sur sur Sénégal sur le mais monde bi parce que ku ne Ibrahima Ndiaye ne l'international. waaw ah, di ñaan di ñaax ñëpp rek. dëgg la ñu suivre exemple bi. parce que am na loo xam ne soxla wul nga ci xaar état. sa dëkk dëkkuwaay sa environnement. immédiat defe naa loolu sax soxlawul nga ci xaar état. donc vraiment di lancer un appel tout le monde quartier yëpp initiative bi ñu am nii ku ne si parce que suñu bopp lañ koy defal état bi mënuñu ko xaar fépp donc am na loo xam ne moom soxlawul nga cee xaar état danga ciy jublu te xam ne sa yëfu bopp la vraiment di ñu def lu mel nii daal kontaan nañ ci yow waaw di wax di rek waaw mbégte la rek waaw ñu doon def rek euh, ak affaire bi di wane rek lii la rek ci valeur la bokk waaw lii mooy valeur nit ku oyof mooy Ibrahima Ndiaye Sindo gis ngeen ko mu ñëw yore baleem di fóot dëkk ci koñ lii rek lañ soxla ci doomu aadama nit mom da ngay oyof boo oyofee rek da ngay rëcc di wax ni rek tamit mënuñoo dem tamit te du nuyu waale waa AIFS di am mbégte ci ñoom rek di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen wax rek Asmoon TV mom nii la rek ci valeur rek lay dox di wane lu rafet ak di wax li rafet di wax ne rek dama leen di jox dig daje rek ci beneen événement bi nga xam ne ko def maanaam yu yàgg bi nga boobaa bu boobaa nag soxla nañ ci ñoom Ala Badji soxla nañ ci ñoom l'international Ousmane Diop pour ñu ñëw takk ci rib jërëjëf